di amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci jotaay bi jërë ngeen jëf ci taxawaay bi jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun ñaan yi ngeen ñuy ñaanal yépp yal na ko yàlla nangu ñaan yi ñaan jëmale ko ci yéen ñun itam yal na ko yàlla nangu li nga xamante ne lott nañ ci suñu bopp bëgg koo defal suñu bopp te mu tëñu suñu borom subxanahu wa taala mën na ko mën na koo taxawee ba mu jàppandi ci ñun yal nañu ko taxaweel ba lépp jàppandi ci ñun jaajëfalaat ñin bu baax a baax a baax. démb bi ñu yëkkati suñu jotaay bi ñu koy ubbi waxoon nañ lu bari lu jëm ci wàllu actualité bi ak xew-xew yi nga xam ne moom lañu dëgmal ci suñ kanam toftaloon ci itam lu jëm ci wàllu ay ñaan ak yi nga xam ne moo ci aju yépp mu mel ne bunt boobu tey it faaw ñu ñëw ci as lëf gannaaw bi nga xamante ne doon nañ waxtaane lu jëm ci wàllu ànd lu jëm ci wàllu bëggante lu jëm ci wàllu xaritoo te yàlla rek tax mu mel ne yooyu yëpp ay tomb yu am solo la waaye léeg-léeg jamono itam am ay xew-xew yoo xam ne doomu aadama yi itam dañ cee war a am ay taxawaay war cee am ay wàccuwaay war cee am itam noo xamante ne moom lañ ci war a taxawe mu mel ne yooyu mooy dellu ci suñu kanam su nekk am loo xamante ne moom la ñuy wax kóllëre wala ñi di ko tuddee responsabilité boo xamante ne léeg-léeg ci àdduna kenn ku nekk da koy am ci taxawaay yi di ko am ci xew-xew yi nga xam ne mooy xew euh, ajjuma ji ñu génn imaam Ahmad Dame ci ab xutbaam dugg na ci tomb yooyu lu am solo loolu bokk ci li kobas suñum xel ba tax waxtaan yooyu ñu jàpp ne responsabilité la ci képp koo xamante ne day jéem a yëngutu ci yàlla nee na yonent bi nee na mu war a jéem a yaatal message yu am solo yooyu nga xamante ne mi ngi bàyyikoo ci ñennat ñi nga xam ne am nañu seetlu ci biir réew mi ndax jamono dana toll foo xam ne kenn ku nekk dafa am lu la war loolu la war loolu moo war a doon sa taxawaay yow ñu koy xaar ci yow ni nga xamante ne responsabilité yi du tolloo noonu rek la warteef yooyu doon loo xam ne du tolloo am koo xamante ne dañ koy wax ne ko waxal am koo xam ne dañ koy wax ne ko jógal nga jëf ak say loxo am koo xam ne dañ ko naan mettit lu lii xew ci sab xol bu ko defee nag ñun suñuy wax mën naa jëm ci fàttale suñ ko mënoon wax ne day jëm ci yeete suñ ko mënoon wax ne day jëm ci soññee ndax fi jamono toll te li nga xam ne mooy e, politique ak responsabilité yi nga xam ne moo ci nekk ci war a sàmm yi nga xam ne moom lañ bokk léeg mu doon ay loi yoo xam ne moo tënk suñum réew ñu di ñu ci àtte ñuy doxal loolu war tënk yitam li nga xamante ne ni moo jëm ci suñum koom-koom war li nga xam ne moo jëm ci suñu faju ak lépp loo xamante ne réew mi day dox ci loolu tomb boobu nga xamante ne mooy saytu loolu ak di ko rataxal dafa mel ne kenn mënu koo génnee ci biir lislaam waroon nañ cee bàyyi xel bu baax a baax mu mel ne dafa am yu lislaam di wax buñ koy wax léeg-léeg ñu di ko tuddee a daruriya wala boog daruriyatul xamsa di juróom yoo xamante ne mënta ñàkk yi nga xam ne mënta ñàkk wala ñu ne juróom benn yooyu ba ca njëkk dañuy wax ne mooy sàmmal nit ki diineem sàmmal nit ki bakkanam sàmmal nit ki am xelam sàmmal nit ki alalam sàmmal nit ki li nga xam ne mooy ab deram ña ca yokk juróom benn ñoo cay boole sàmmal nit ki ak maanaam ab juróom maanaam ak amum doomam ak wàllu njabootam wala boog sàmmal nit ki njabootam juróom yooyu wala juróom benn yooyu bu ñu seetloo benn génnu ci li nga xamante ne mooy politique ak responsabilité boobu te lislaam fonk na ko ba tax mu def ko juróom yoo xam ne mënta ñàkk maanaam sàmmal nit ki diineem ba diineem du yàqu mu am pas-pas am taxawaay am faayida ñu sàmmal ko ko ba mu mën koo jooxe ci bépp taxawaay boo xam ne moo war sàmmal ko bakkanam ba nga xam ne kenn du ko foye kenn du ko rey ci maali furu sàmmal ko am xelam ak alalam ak njabootam akub deram su ma seetloo nag juróom benn yi nga xam ne moom lañ lim mën nañoo gis ne ci wàllu yar wala ci wàllu taxawaayu politique ak yi nga xam ne moo ci aju tam waroon ñu ko sàmmal dafa mel na ñun bu ñu seetloo suñu politique bii ak suñu doxalin wii am ci pénc mi moom sàmmaluñu ci juróom yi benn du suñu diine du suñu bakkan du suñum xel du suñu alal du suñu njaboot du suñu der bu ma jëlee bu njëkk bi ma njëkk a wax di suñu diine dafa mel ne yu baree bari yoo xamante ne mën naa tax nit ki tàyyeel ci diineem mën nay xew ci pénc mi waaye day mel ni ki nga xamante ne dafa falu te politique fal ko ak ki nga xamante ne dafa yor programme politique di dox ngir jëm di faju bëgg a falu ji loolu du attirer mukk attention mu jàpp ne am na ci moom role bu mu ci war a taxawee maanaam am na ci responsabilité bum ci war a taxawee boo xamante ne dana yëg ne lii moom wartee fam la boo xam ne moo war a taxaw xeex ci ngir loolu jag léeg ñu xaaj ko ne ah am na loo xam ne mbirum diine la am na loo xam ne mbirum politique la kon loolu day mel ne sunu yoon nekku ci te bu ñu seetloo ba seetantal danañ yëg ne jaadu woon na kenn ku nekk ñu sàmmal ko diineem sàmmal ku lam gëm ba nga xamante ne dara lu ko ca soof du am bu boobaa du ñu jël diine ji foye ko jël tarixa yi fëgg leen ci kaw nit ñi jël leen def leen jumtukaayu làqutu maanaam mel ni bukki bu sàngoo deru béy ngir bëgg a dund wala dara nga xam ne fi mu ne politique bi yóbbu nañu ci dimension boo xam ne léeg-léeg nit wax ci penc mi ne diw taalibe la moo tax dañ ko war a jàppale léeg ñu wax ne diw du taalibe moo tax waruñ koo jàppale léeg ñu wax ne man taalibe laa wala nit feeñal ne man fii laa bokk wala nit ne man feeñal ne man bokkuma fii mu mel ne yooyu su ma koy joxoñ ay tomb yu naqaree wax la waaye anamuk defar ak jublu rek lañ ci bëgg jublu ci suñu niveau ñun fi mu toll mooy am réew mënoon naa jag te duñu sukkandiku ci yooyu noonu ñuy tudd ndax sukkandiku gi bu melee ne lu am lu muy defar itam dafa am lu muy yàq ndax léegi tey ñu ne ñoom diw ñoo ëpp doole ñoom diw wala ñu ne ñoom diw amuñu doole wala diw ñoom diw a ko fal wala diw ñoom diw mësuñ koo fal bu boobaa nit dana falu ba noppi nekkal fi wenn xeet bàyyi ñi ca des te fekk loolu doonul li ci diine li gën rek mooy waa ji jàpp ne moom defara ko war am réew lañ am mu tudd Sénégal ñi ko dëkkee doon ay senegale ñu am ay ngëm-ngëm ngëm-ngëm yooyu sàmm ko dafa war beneen bi ci topp te mooy sàmmal nit ki bakkanam lu yaatu la li déegi di bari am ci pénc mi bari na lool bari na lool bis bu set ñu gis mbooloo mu bari moo xam ne fu ñu dajee rek da nga dégg nangam moor oto yi di rey oto yi di rey suñu cérémonie yi di rey politique bi di rey nit ñi ci seen bopp di reyante bu ko defee loola ka wala diine ci boppam wala wala wala boog ci boppam su ko yëgee ak su ko yëgut am na responsabilité bu rëy ci loolu ndax politique hiya al mas'ula wala asiyaasa hiya al mas'ula an ricaayati haadihi almabaadi walqawaacid wal amal li tajsidiha fi ayaati alfardi waljamaa eh, bu ko defee nag moom politique dafa doon loo xam ne responsabilité la ngir sàmm ak taxawal jubbanti ni nit ñi di dunde moo xam dundu kenn la wala dundu mbooloo la population ba dëkkee réew ma soxla lool taxawaay boobu ñu war leen a sàmmal seenum xel war leen a sàmmal seen alal kon war leen a sàmmal seenub der yooyu yëpp benn bu ci nekk ni ma jukkee tomb bi ma wax ci wàllu bakkan ak wàllu diine mënoon nañ ko wax ci wàllum xel léeg-léeg ñu jël suñu xel yi di ko foyee ndax jël xel yi di ko foyee weesuwut ni nga xamante ne noonu la politiciens yi jàppe nit ñi koo déglu suñ ma falee dinaa def nangam danaa def nangam danaa def nangam saa yu nit ki waxee loolu dafa am benn responsabilité boo xam ne moom la samp ci kanam ñam wax buñ ko tànnee ngir loola bu ko defut woor na su ko defut wor na moo tax digg ga mënoon a ñàkk taxawaay yu mel noonu mënoon a ñàkk kon ma ngay fooyee xelum nit ñi alal ji ñëpp bokkit niñ koy yàqee ku ne gis na ne jéggi na dayo njaboot gi itam niñ leen waroon a encadrer ku ne gis na ne jéggi na dayo der yi nit ji doore ñëw demee noonu kon damay wax ne buñ tollee ci jamono jii fi monde bi tollu léeg ñu war a dellu nag ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu delluwaat ci luy tax nit ki nite loolu danañu dimbali lool ci ñu xam yi nga xam ne moo war ci taxaw taxaw taxaw goo xam ne ak ëppal du ci am ak jeng du ci am ak xuuse du ci am doxalin woo xam ne day tax nit ki karaamaam dañ nga xam ne tuur deret dana fi dañ jalgati dañ àq yi war a dox ci wàllu alal yi ñu sàmmonte ak moom li war a indi sécurité ba nit ñi am ko moo xam ñiy dund par kenn la wala mbooloo yi la moo xam dëkk yi la dëkk yu sore yi la wala dëkk yu jege yi la bu boobaa loolu yëpp day nekk taxawaay boo xamante ne ñooñu danañ ko am kenn ku nekk am ko ci la nga xam ne moom lay doxal su ko defee rek taxawaay bi day nekk loo xamante ne kon ay ndam lañuy jural moom la ñuy jural fii moom la ñuy jural ëllëg mbokk yi li tax mu bëgg a fàttali loolu bokk na ci li nga xam ne moo nekk suñu kanam nga xam ne mën naa doon ay élection yoo xamante ne mbirum tànn la nekk ay responsabilité yu rëy nga xam ne buñ demee ci lislaam mabadiwul islaamiya ak siyaasa dafa mel ni jàmm la waroon a doon ñeel nit ñëpp ci wàllu tox maanaam ci wàllu doxalin loolu nag buñ koy xool ba ci njëkk mooy ñi fexe ba mu doon loo xam ne day wormaal tedd ngay nit ki ci boppam day wormaal tedd ngay nit ki ndax suñ borom subxanahu wa taala moo ne damaa teral doomu aadama wala xadd karam naa ba nii aadama bu boobaa duñ wax mukk wax ju joonu ci suñu diggante duñu doxali doxaliin woo xamante ne ñàkk teral doomu aadama da cay feeñ wa hiya karama lil jins al nga xamante tedd nga lay doon joo xam ne ñépp a ko yoyoo nit ñépp ndax suñ borom bani aadama la wax moo xam ab jullit la aw kaafiran wala ab yéefar la moo xam ku maanaam ku woomle la risa wala koo xam ne ku ñàkk la moo xam ku xam la moo xam ku réer la moo xam mbokk mu jege la moo xam ab jàmbur la moo xam ku dëkk ci réew mi la moo xam ab jàmbur la ñoom ñépp rek bi mu nekkee doomu aadama rek suñ borom nee na dama koo teral politique bu ñëwee nag dafa mel ne loolu daa bokk ci li nga xam ne moom lay dëggal moom lay taxawal ngir sàmmal nit ki teraanga jooju nga xamante ne nii suñ borom subhaanahu wa taala moo ko teral doomu aadama war koo jàppale ci loolu mbokk yi loolu ñun ñi nga xamante ne ñooy seetlu ni mbir yi di tëddee nañ xool ba xam ñi nga xam ne ñooy politique ñi nga xamante ne ñooy laaj suñuy kàddu ñi nga xam ne ñi ngi mbaxar yàpp diiru weer wi yépp nga xamante ne ruq bu ñu yaakaar ne mën nañu ñu faa fekk ñañ fa war a fekk fekk nañ leen fa takk nañ seen rajo ci mbedd mi def nañ ay karawaan tànqal nañ nit ñi witt ca la ñuy sàkku ak effort yi nga xam ne moom lañ ci doon def léegi nag nañ xool ba xam seen doxalin woowu ndax teraanga ji nga xam ne moom la suñ borom subxanahu wa taala defal doomu aadama mi ngi dëppoo ak yi nga xamante ne moom la ñuy def wala déet ndax dafa mel ne jot ci pal gi léeg mu jaral nit jaar ci kaw nit ñi ngir jot ci loolu lu xóot la. bu ñaareel bi ci topp mooy ak yamale goo xam ne dafa war a am ci nit ñi taxqiqul adala linnaasi jamian duna tafriq yamale suñ borom dafa bëgg ñuy yamale nit ñi yamale nit ñi mooy maandute maandute am ci pénc mi bu boobaa ki ki nga xamante ne dañ koo war a fal war nañoo xaar ci moom maandute googu war nañoo xaar ci moom yamale googu suñ borom subhanahu wa taala moo wax ci alquranul karim ne inna allaha ya'murukum an tu'addu al amaanaati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adli suñ boroom nee na mi ngi leen di digal ngeen di matal kóllëre yi responsabilité yi ngeen jël wax yi ngeen waxante ne ngeen koy matale mbokk yi nañu bàyyi wor nañu bàyyi wor yow mi nga xam ne da doon wut di dem ci nit ñi rikk boo amee itam bum tax nga gëj ci nit ñi waaw yow mi nga xamante ne lu ne digge nga ko boo amee itam boo ko manee boo ko mënut ne la nit ñi di gis antu addul amaanaati ila ahliha yemu ca nag mu ne bu ngeen di atte nag na ngeen atte nit ñi ci maandu na ngeen ñi ci maandu rik waaye bu leen politique ba falu tax ku farag yéen mucc ku noonoog yéen dugg ne rubba waaw nga xam ne dañ naan waa ji moom faaw mu wax lu neex ñoom diw ndax bu ko waxut boo moytuwut ñu ne ko ceex jàpp tax moom lu neex ñooñu rek lay wax ëpp naa def ëpp naa def nañ maandu suñ boroom nee na nañ ko teg ci dëgg yaa ayyuha alladina amanu kunu xawaamina bil qisti suhadaa lillah walaw ala anfusikum loolu la wax awil walidayni wal aqrabin in yakun xaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tatabihu l an taadilu suñ borom nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm te muy dëgg rikkwaay na ngeen jub xocc te tegu ci njub rikkwaay na ngeen di seede ci dëgg na ngeen di àtte ci dëgg même su fekkent ne li ngeen di wax dafa dal ci seen kaw kon waxumaa koo bokkal parti waxumaa kuy wax lu la neex waxumaa koo xamante ne dangaa jàpp ne am nga ay calcul waaye yàlla nee na même su fekkee yow ci sa bopp la sax dañ laa war a sanctionné nga yor sanction bi nangul mu dal ci sa kaw nga ne ko ah mu ne xanaa sa bopp loo ko réyal réyal say waajur même bu dee ñoom la même bu fekkee sa famille la moo xam ku am la wala ku ñàkk suñ boroom moo gën a yayoo ci ngeen topp ko topp leen ko te bu leen topp bànneex yi te bu leen topp bànneex yi kon dana leen yóbbu ci ngeen ñàkk a mën a jubal mbokk yi ndénkaane yi buñ koy wax mooy kenn ku nekk yëg ne li ñuy xëccoo ak di ko laaj ay responsabilité la yu rëy rëy rëy danaa ci ñëw bokk na ci yooyu ki nga xamante ne dafa bëgg falu wala mu bëgg a politique wala mu nangu ne damay tànn kenn daa bokk ci yim war a sàmmonteel mooy nangul ñeneen ñi seeni xalaat mhm. al ihtiraafu bil axar wal ihtiraafu bi xaqihi fil wujud mu mel ni nit ki du ne man li ma jàpp rek moo baax wala ñi ma nekk rek li ma ki ma faral rek kooku doo nga fi nekk keneen ku dut kooku nekku fi violation yu bari li ko waral mooy jàpp ne di waru fee waxe wala di waru fee defe wala ñoom diw dañoo contre wala ñoom diw dañoo jeng wala ñoom diw dañoo far su ko defee loolu ay réero yu métti rek lay indi ci pénc mi kenn ku nekk da ngay gëm li nga gëm maanaam da ngay nangul ki nga nangul ànd ak moom ne man parti sangam ñoom lay supporter waa parti sangam ne ñun ñooy ñoom diw suñ programme baax na waaye nag ñu nangul keneen it mu taxaw ci penc mi ne man parti sangam laa àndal parti sàngam seen programme baax na mu mel ne bu ñu nangulantee nangu yooyu li ñu yootu lépp mën naa doon loo xam ne lu jub lay doon mën naa doon loo xamante ne ndam rek la ñuy am faw nangulante googu am waaye kenn mënta taxaw rek ne mën ñëpp mën la ñuy àndal loolu moom lu jomb la loolu moom du jomb la suñ borom subxanahu wa taala sax diine ji nga xam ne moom la bëgg ñu nekk ci te moo ñu bind moom ñu yor suñ noy yi nekk ci loxoom suñu wéradeeg suñu wéradi lépp di am ci coobareem taxut lam santaane ñëpp def ko waaye dafa wax ni bu leen forcer kenn ci diine laa ikraa fi diin kon nag lu tax nit bëgg a nit ci programme lu tax nit bëgg a nit ci mu wateel ko lu tax bëgg a nit ci mu ànd ak moom lu tax nit bëgg a forcer nit ci ne man dong maa fi nekk suñ borom nee na loolu baaxut bàyyi leen nit ñi ak seen coobarey bopp kenn ku nekk tànn li muy tànn waaw bal yatruku linnaasi xurriyatal ixtiyaar bàyyi leen ñu tànn fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur suñ borom sax nee ku ma neex weddil waaw weddee ngi noonu ngëm daal danaa fexe ba mu leer leer na nañ ku mu neex gëmal bu ñëw boo ñëwee danaa la fay ku jàpp ne waroo maa gëm dangaa bëgg a weddi weddil defal lu la neex man awma problème boo ñëwee itam fekk ma fi ma fay la lu toll ne li nga xam ne moom moom nga doon def loolu ay aaya alxuraan yu bari manees na ko cee jàng bokk na ca laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatiluukum fi diin wa lam yuxrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitiin kon maandu ak jubal googu ci taxawaay yu am solo yi la bokk suñ borom subhaanahu wa taala bëgg nañu bàyyi xel ci loolu bokk na ci loolu nag sàmmonte ak suñu responsabilité yi suñ pas-pas yi nga xam ne fas nañ ko kuy falu ak kiy falaate yépp na sàmmoonte ak li ñuy waxante waaw ixtiraamul uxuut wal uquut suñ boroom nee na aw fuu bil ahdi inna al ahda kaana mas'ula yaa ayuha alladina amanu aw fuu bil uquut wax na ko te ku ne xam na ne wor wor mooy ñàkk taxaw ca la nga sartonte woon ak nit ñi ci jikkoy munaafiqiina yi la bokk maanaam ci jikkoy naafiq yi la bokk koo xam ne lu mu wax nit ñi rek buñ ko nattee gis ay waxam ak i jëfam wuute bu ko yëgee ak bu ko yëgut ci naafiq yi la bokk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu doon wax ab naafiq ni muy mel mu ne ñu isa tumina xaana wa isa xadada kadaba wa isa aada xadara wa isa xaasama fajara ab naafiq allahu akbar soo ko wóoloo mu wor la soo ko wóoloo ba ne yow laay fal ndax yaa fi indi programme bu saf diine yaa fi ñëw ne da nga defal nangam lislaam yaa fi ñëw ne danga nga taxawu ñun baykat yi yaa fi ñëw ne ñu da ñu defal nangam yaa fi ñëw ne ñu da fi jëlee ak yàq boo ko falee mooy dàq yàq ñëpp mooy gën a fooyu ñëpp day wor mooy koo xam ne la muy wax du dëgg kon loolu jikkoy naa yi la bokk bokk na ci yi nga xam ne war nañ cee bàyyi xel mbokk yi tam bokk ci li nga xam ne mën naa tax ñu am jàmm mooy ñuy waxante lu rafet wa xuuloo linnaasi xusna suñ borom nee na dee leen wax dee leen waxante ci seen diggante wax yu rafet bu ngeen di wax it na ngeen maandu wa isaa qultum faadilu alayhi salaatu wasalaam nañu ku gëm yàlla gëm ne da nga dajeeg moom mu fay la la nga doon def booy wax ak ñi na ngay wax lu baax wala nga noppi man kaana yumin billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut su ko defee loolu day am solo lool bokk na ci li nga xam ne moo ñu indil jàmmit te ñu war cee bàyyi xel rawatina ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu politique ak yi ci aju mooy nag bañ a jëm ci wàllu péete wàllu wàllu parparloo waaw di woote ne ci kuréel gii laa bokk bokkuma ci kuréel gii man ñoom diw ñoom a ñor di puukare woo lool di ko yëkkatikoo ci pénc mu ñëpp bokk mën naa taal am pénc mën naa indi fitna mën nañoo dugal ci yoo xamante ne nii dara du ci doon loo xam ne lu gën la te itam ay réeroo rek la ñuy indil su ko defee nag ñu bàyyi xel ne dem wate ji moom farata la farata la maanaam lu suñ borom gàll la ci loosu képp ku nekk ab jullit waaw képp ku nekk ab jullit lool daa nekk eh, loo xam ne dañ koo gàll ci loosam inna aradna al amaanata ala alsamawati wal ard wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa asfaqna minha wa xamalaha al insaanu innahu kaana zaluman jahula waaw suñ borom nee na kóllëre googu day responsabilité yooyu doomu aadama moo ko jël gàlloo ko suuf mënu ko asamaan mënu ko montagne yi mënu ko nit a ko man kon nag na kenn ku nekk jël ay responsabilité am fu jamono tollu di ko taxawal nam ko war a taxawee te moytandiku ger moytandiku njënd mi ci am moytandiku jëlum xaalis mi léeg nga dégg ñu ne ku leen jox xaalis lekk leen nangam nangam ma ne jamono ngay yàqu nag waaw jamono ngay yàqu ndax kay joxe xaalis waroon naa toog ki nit am problème mu kii nan laa koy joxe xaalis ndax tiit ndax rus yii kii de su ma su ma su ma duggee ci di ko jéem a jënd du sotti waaye ñun ñëpp ku ne pare nga ngir ñu jënd la problème bi kay mooy man ngaa bañ tey ndax njëggee tuuti wala mën ngaa bañ tey ndax xeetu niñ la jëndee waaye bari na ñoo xamante ne am nañu njëg ku ko xam rek jënd leen kon nañ dem góor góorgóorlu wate ji waaye yëg ne nag wate bi ñuy wate suñ borom danañu ko laaj ëllëg yowmal xiyaam koo xam ne dem na dugg ci aw ruq jël aw xobam dugal ko ci carte dugal ko ca biir mbañ gàcce ma roofal ko kam ko roof suñ borom dana ko laajaat ëllëg ne ko ki nga tànnoon lu tax nga tànn ko mu ne yàlla daf maa joxoon dix mille moo tax ma tànn ko accam dix mille dong nga tax nga jaay ñu ñun sénégalais yépp xooloo kooku ndax am na njariñ wala amul njariñ weeru dee ñi war koo jox suñub xaalis accam responsabilité yooyu jar naa xalaat jar naa bàyyi xel wax naa imaam ahmad daam njaay mi doon jàngale dars bi may jaaraat tey ne ko bi nga waxee ne ku ne danañ la laajaat li nga doon wate te responsabilité la daf maa indilaat beneen problème nag ci nan la ñuy tànn ci liste yi nag kan lañ war a wateel mbokk yi kan lañ war a wateel ndax dañuy xam programme ki ñuy wateel door a wate wala ndax dañuy bokk ak moom koñ wala ndax dañuy jàpp ne rek moo fi nangam moo fi nangam ñu wateel ko buñ ko wateelee mu dem ca péncum ndawu réew ma te amalu fa njariñ nit ñi amalu fa njariñ diine ji nekkal fa boppam nekkal fa ay mbokkam ndax loolu danañu neexalayal ëllëg déedéet du neexalay bu boobaa borom nee na sa tuktabu sahaadatuhum wa yusaluun seen seede yi seen wot yi man yàlla bind naa ko te ëllëg yowmal xiyaam danaa leen taxawalaat laaj leen ko kon nag ñu tànn tànn ku wóor tànn ku am kàttan tànn koo xam ne jàmmi réew mi ak doxale réew mi amal na ko solo loolu benn bind la boo xam ne rek dañ koo indi mu nekk suñu barkeelu ñun suñu participation ci li nga xamante ne ñeel na bis bi nga xamante ne ci lañu nekk te mooy war a dem tànn suñuy xob wate tànn ñi nga xam ne ñooñu war a toogale ci péncum ndaw réew ma yàlla na ci jàmm mujj ku ko man daal boo xëyee demal def ko boo ci jógee dugal sa kër sa noppi bàyyi par parparloo bi bañ a xàcc sa loxo dóor kenn bañ a wax lenn luy taal fitna bañ a sol luy ne parti sàngam nga far ndax bañ nañ ko ba lépp dañoo bëgg ki koy def def ko ci secret buñ ko defee noonu jàmm rek la ñuy am te jàmm moo ñu jik fii moo ñu jik fële rawat na ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi te amuñu feneen fu dul réew mi yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole taxawu ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax nag ci waxtaan wi waaye defar rek lañ ci jublu ak fàttali ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy bàyyi xel te bëgg ñu ne yàlla nee na yonent bi nee na bëgg itam lislaam di wax kàddoom ci lépp loo xam ne xew na ci pénc mi njàngat moom lañ ci bëggoon a indi barab bi bàyyi ko mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñ borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te sàmmuñu ñaan suñ borom mu defal ñu jàmme àdduna defal ñu suturas àllaaxira seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di al misbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.